waaw pas sorti sniper. Yeah? Uh-huh. It's not like a good one. okay. Yes, sir. vraiment ma joxoon de Aliou yow su ma la wooyee bu ma affaire bi lu muy def. tiit tiit lay def mel ni bu génne international. non non non <laughs> c'est sérieux. <laughs> day fekk day fekk mu nekk barke yàlla barke yàlla. man xam nga ma dimbalee maa ngi waaw. wallaahi ma nekk kadas rek ma réglé la affaire loolu nga ma mën a dimbalee. waaw mais nan naa xamee yaa ngi kadas mais mais loolu kadas lañ ko liggéey liggéeyante. waaw kadas rek moo ko mën a. kii mooy notification. waaw kadas rek la ko. waaw léegi nañu bàyyi ba lënd ñu xool dégg nga. lë lë lënd ñu gérer loolu incha allah.

Thank you.